yéen mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di fàttali bés bi nag bés bu rëy la ci bés yi bés la boo xam ne dafa tegaloo ay ay barke yowmul xajjil akbar tahyuuna fiihi sunnata abikum ibrahim yéen a ngi dundal ci bés bi itam sunna seen maam suñu maam ibrahim li nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da def sunnaam hay su umira bi zabhi waladihi ismail fil manaam amru wax yin la adgaasu ahlaam fi nga xam ne moom boroomam diggal na ko te digal boo ko def digal yonent bi du ay gént rek na ren di doomam Ismaayil amma baat fa yaa ibadallah yéen jaamu yàlla jadidul imaana fi kulli saatin nañu yeesalaat sunu ngëm yàlla waxtu wu ne waawaa ne ak sa su ne wa sahihu niyaat qabla duxulil ibaad bala ñoo dugg ci dara nañu fas yéene bala ñoo dugg ci liggéey benn iyaakum inhimaaku fil maasi wa sawaat maa ngi moytaloo sama bopp di leen ko moytaloo muur ci ay bakkaat muur ci ay ay ay ay saxabaat wala tattabiu xuraatu seytaan e eh, mbokk yi bu ñu jaar bu mokk ci ay euh, jéegoy seytaan li nga xam ne almudillaat day réer le wattaqullah nañu ragal yàlla fii maa taatu na ci li ñuy ñëw di ko def wa maa tazaruuna ak lépp lu ñuy bàyyi nañ ci ragal yàlla yàlla taala innamaa yataqabbalu llaahu minal muttaqiin man yàlla daal xam nga ne ñaan laay nangul seen jëf mooy ba ñuy jëf dañoo jiital ragal yàlla lu dul loola dañ koy récité dañ koy delloo ci boromam kon nag lépp lu ñuy def mu tuuti mu mu rëy nañ ci jiital ragal yàlla bu ñu ragalee yàlla dutuñu du boo ragalee yàlla itam def ko ci dootoo gisati lu la ci naqari déedéet ñu yëg ko ak ñu bañ koo yëg mooy yem ci yow ndax ki nga ko defal daal doy na sëkk muy suñu borom wa gaala aydan lan yanaala llaaha luhumuhaa wala dimaa'uhaa walakin yanaaluhu taqwa minkum xoolal fépp fu mu joxe eh, ndigal nañu jaamu yàlla loolu aaye boobu dana ci ñëw nee na day yàpp yi ak duufaay bi ak eh, kawar gi ak lépp du yegg ci yàlla de lan lan ma yegg ci yàlla ba nga koy def yaa nga toppandoo sunna boobee nga xam ne ki ko defoon kero defee ko woon pou puukër ko defe woon gëm yàlla dafa gëm dafa defe woon xam ki ko digal mooy kan moo taxoon mu def ko mu am ci limo ci am ba tey muy wéy wa fi lhadis inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum nee nañ yàlla de du seet seen melo yi seen colin yi déedéet du seet itam seen alal yi walakin waaye nag yàlla kay li seet ci yéen ila qulubikum seen xol yi lan ngeen fas lan ngeen di def lan ngeen bëgg wa amalikum ak jëf yi nga xam ne mooy feeñal li nekk ci xol gaalu alayhi salaatu salaam axlisu ibadatallah na ngeen sellal jaamu yàlla waa gi mu xamsakum na ngeen motale seen julli juróom bu julli juróom matee xam na ca na ca nekk fay juróom fukki julli lay doon waaye loolu ki koy am mooy ki nga xam ne da koy rafetal waa du zakata am waalikum li ci topp rek nañu joxe sunu asake alal gis lislaam ni mu amee social ak ni mu yaatoo ak ni mu mën a dimbalantee bu fekkoon ne ñu amal alal yëpp génnee nañ ko jox ko ñiñ ko joxloo doo fi gis tuuma doo fi gis kuy doxantu kenn du dem ci gaal yi euh, bu ngeen koy def yi xam ngeen sellal ngeen joxe ko Maodo nee na euh, asaka maa la bokk ci maa la jur maa la jàngal maa la may tool maa la may na déedéet dafa am ñi yàlla tuddal boppam ñi ñu war a jox asaka parce que yàlla xam na ne nit dafa bëgg alal te dafa bari ay pexe bu mu ko sàkkee déedéet bàyyiwul loolu jox ko yonent jox kenn moom moo ko tereeteel boppam mu ngi ko war a jox ba mu jeex ba loolu ba loolu sax terewut am na ñoo xam ne nii dañuy ay jël ay aaye soppi ko dugal foofa seen soxla yal nañu ci yàlla musal bu ko defee nag su muusa harakum na ngeen woor seen wooru koor bu jotee na ngeen ko woor waaw wahajju bayta rabbikum na ngeen aji seen néegu seen borom bu ngeen defee lii te rafetal ko tadxulu jannata mu ngeen dugg seen a ajjanay borom allahu akbar mu an qad sunna li hurrin muslimin qaadirin xayra haajin daxiyatun sunnaal nañu ci ki nga xam ne gor la nekkul ci ay loxo attan na nekkul ca makka mu génne mu def euh, tabaskim an waan abaway mu defal ku ñaari ay waajuram gën defal ko ay bi biir alfaqirayni bu fekkee dañoo yittewoo amuñu waaye nag walaa yajuuzu bay ushay'un minha danga noonu nga jaay ci euh, euh, lay yoon wér naka di euh, tabaski bi da doon nga jaay ci dara ki lay feesal da koy jox xaalis koo jox itam da koy saraxe waaye doo jaayee doo wëlbati wala ujratun wala badalun doo fay doo doo doo wa gaddaha alayhi salaatu wasalaam bi kab sayni am la xayni agra nayni zabahuma bi yadihi sharifa sallallahu alayhi wa sallam indi na ñaari xeer yoo xam ne yu weex la yu am ay bëgg nu xar di mel rek may lañ noonu zabahahuma mu rendi leen ñoom ñaar bi yadihi sharifa ci loxoom bu tedd ba wa fi riwayatin qaala bismillah wallahu akbar nee na bi muy rendi dafa wax bismillah wallahu akbar mu rendi leen parce que booy rendi tabaski dooy dem ci arrahman arrahim parce que arrahman arrahim yërmande la te fi nga nekk du yërmande da nga ne bismillah allahu akbar allahuma hada anni wa aman lam yuddahi min ummati bii man la ak sama wàcc bii sama xeet wi ba àdduna di tukki ku amut bul jax bul tiit bul def dara xamal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rendil na la diin nag ba diine jeex noonu laa man bëggul nga jiitu ko bu tisbaar jotut bul ko julli boo jullee am na julli bu weeru koor jotee bu jotagut boo waree am boo de bu makk jotagut boo demee am ba lépp jeex parce que lépp bi nga waxee ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sa lépp mat na ali afdalu salatu wassalam ma min abdin tawajjaha bi udiyatihi ila alqibla illa kaana damuha wa farsuha wa suufuha hasanatin muhtaratin fi misani mu ne amul kenn ki yéen kuy tëral am xaram rendi ko lu dut euh, yàpp waag bëjjën yi ak kawar gi yëpp dañ koy def ay yiw def ko ko ci mandarkaam ëllëg bu ñu koy peesee ay li ay liggéeyam waanu da azimu daxaayakum fa innaha ala siraadi malayakum mu nee nañu itam na ngeen defar seen i seen xar yi nañ leen mag màggal ndax bu soobee yàlla ëllëg ci siraat ci ngeen di war jàll an ibni abbasin radiallahu anhu maa min sadaqatin baada silati rahmi afdalu min iraqati dam amul benn sarax tey bu gën a rëy lu dul jokk mbokk kon nag jokk mbokk mooy jiitu lu ne bu dul juuti mbokk daal ren di xar moo ko ren di am tabaski moom waalamu anna iida nahri ak akbarul idayni aa julli gii nag moo gën a rëy julli yi wa huwa alladi qaala fi alayhi salaatu wasalaam inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum aleykum haraamun hormati yowmikum hada fi baladikum hada fi saarikum hada wa satallaqawna bikum yasalukum an amalikum allah tarjiu baadi kuffaara ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam fii la tase woon ak jullit ñi ci hajjatul wida yàlla def itam muy bisu ajjuma bisu arafat waa waa makka am nañ ko ren mu ne leen ah bii julli daal moo gën a waaye seeni deret seeni yaram seeni alal ñoog na bu kenn tooñ kenn bu kenn jalgati kenn xaram nag xarmati yawmikum hada fi baladikum hada fi saarikum hada wasata lak am na bikum di ngeen taseeg ëllëg ak seen boloom mu leen di laaj na ambalikum seen seen jëf kon nag man yonent bi la ma waroon a wax wax naa ko la ma waroon def def naa ko la ma yónni yàlla yónni woon yeggal naa ko hal balaxtu ñu ne ko balaxta yaa rasulallah mu ne ko nag bu leen dellu sama sama gannaaw di def lu leen neex jullit du def lu ko neex day seet lan moo neex yàlla mu def ko wa fi misli hadal yam fi hadratil bidayi hay waa koy daala salam tarifum fi mahajjatin bayda sallallahu alayhi wa sallam jox naa leen ne joo xam ne mu ngi mel na xanaa rampoye lañ xam nga bu mag bi na lañ koy wax apias amul dara lu fi nekk dafa leer nañ nu la neex ngay dawee bayda doo fay doo fay kii wa nahaaruha kalayliha guddi gi mu ngi mel na bëccëg bëccëg baa ngi mel na euh, noonu laata di lu baax di kon nag bu leen reer sama gannaaw mooy leen ci loolu mooy leen ci sunna bi mooy ngeen ci alquran kon bu ngeen ko defee du ngeen juum du ngeen réer du ngeen rëccu ndax nit bu ne def naa ko rëccu naa ko rek defee wut ngir yàlla bu deful ngir yàlla doo ci gis loolu naqari te doo ko rëccu. kon nag. hadihi l aya al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati rabbi ngoog ñu ngi leen wax kullu aamin wa antum bi xayr aadahu llahu alaynaa wa aleykum bil yumni wal yusri wal fadli wa sihati wal aafiya innahu ala zalika qadir allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi ñaan yàlla ci barke bés bi yal yàlla jàppale ñëpp suñu imaam yàlla na ko yàlla yàggal suñu kanam ñu yàgg koo topp xale yi nga xam ne itam ñoo aw diina ji tey mm-hmm. ñu ngi leen di dénk bu baax a baax ragal yàlla lépp lu ñuy def yàlla nekk yàlla bu nekkee yàlla duñ ci gisul leen metti du leen gis du leen naqari mm-hmm. waaye du ngeen ko rëccu itam lépp ngi ñëw seen kanam mm-hmm. li ci des rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne feek mag ñi ñu ngi yërëm xale yi xale yi di respecté mag ñi ci jàmm rek lay nekk bu leen def dara yéen xale yi nga xam ne yéen la yàlla jox yan bi tey te yëguwu leen ak mag ñi ndax mag ñi xam nañu mënatuñu yéen xamu leen waaye man ngeen man manu mag nag du jàng déedéet gisoon na démb ak berki démb mu boole koog tey muy xam-xam ba mat sëkk bi nag lu mu jàng-jàng xamutoon lu xew tey démb xamutoon luy nuñu séentu déedéet peut-être def parce que doole la am kon nag bu ñuy defee noonu rek ci jàmm lañ nekk ñu ngi leen di baalu àq te deen ko baal di wax yàlla ñu yàlla dolli sutura dolli teraanga dolli naataange nawet bi yàlla na ko yàlla yeggal ci jàmm euh, xol yi yàlla na ko yàlla tàppe ba ñëpp nekk benn waa mais rek ñu am jàmm sécurité bi itam ñoom itam am nañ ci ñaari wàll parce que ay julli lañu ñoom dañ toog fii waaye nag ñoo yore kaaraange bi itam ñëw taxaw nii fii ba Makka ba Madina bu nit ñi taxaw nii la ñuy taxawee parce que bu kaaraange amul dara du dox te yéen itam yal na leen yàlla jàppale yàlla bu leen gis lu euh, jaaxal réew mi yal na ci yàlla def dal yal na ci yàlla def dal def ci juboo def ci juboo réew mi kenn moomoo ko kudul yàlla yàlla rek mooy borom réew mi nañ ko xam bu baax mu waaye moo koy jël teg ko ci loxo ku ko neex bu ko taxee ci loxo kooka nañ ko déglu kooka ba kooka motal bu kooka motalee ñu seetaat bu ñu tànn ñu tànn ku ñu neex waaye bu ñu tànnee ba pay tam nañ ko bàyyeeg euh, nguur mm. lenn lenn doy mat ñu bañ yàq dara bañ def dara bu ko defee nguur yàlla moo koy joxe fekk nangu bu ko kenn mënu ko jël waaye bu ko joxee itam ñu ànd ak moom ci ci joxe bi yàlla joxe bu matee itam bu ñu tànn ñu tànn ko lu neex waaye fekk matagul nañ ko bàyyi noonu jamono nañ ñooy salaamaaleykum wa rahmatullah guddal naa salaam